kii ñuy wax Moustapha jaxate Moustapha Diakhaté du tey laa njëkk a wax ci moom ndax moom dafa am noon bu mu àndal mënuñoo tàggoo muy aw làmmiñam Moustapha Diakhaté wala fi dañuy wax ni jikkoo du gën a yaan aw làmmiñam wu rëy taxoon na mu duggoon Ablaye Wade ba amoon fa nob mbay tànk am fa wàccuwaay waaye noonam boobu di aw làmmiñam tax na ba ñu futti ko boobu ni dung ci lu doxoon digganteem ak Karim Wade wax jum ko doon wax tax ñu dàqe ko ca pale ba élection locale yi ca topp mu dem lëkkaloo ji ak président bi fi jóge di Macky Sall élection yi jàll mu tàggook moom 2012 mu ñëwaat ak làmmiñam mu rëy ba Macky Sall falu ñu takkal ko ndomb ak tànk mu dem ba doonoon président groupe parlementaire waaye noonam bi mu àndal di aw làmmiñam tax ñu futtiwaat ko ba mu dugg ñu dàq ko léegi nag noonam boobu di làmmiñam moom la yor di wër di wax bu xëyee ci rajo yi bu ngoonee mu dem ci sit internet yi chaîne YouTube yi bu guddee mu dem ci télévision yi wax a wax a wax ba amatul lu mu wax yàlla dogal nguur gu yees gi am mbokk mu ci bokk kere ba muy weccente ka mu wutu ay lenge col ga mu sol Moustapha Diakhaté jóg dal ci kawam dama leen di bàyyi ngeen déglu li Moustapha jaxate wax ma doog a dellu si. état état muy gouvernement. Mm-hmm. direction yi fépp service public. Mm-hmm. li ñuy sant ci moom d'abord mooy la neutralité politique. la neutralité religieuse. Mhm. la neutralité ethnique. boo cérémonie officielle waroo faa sol wala wax fa loo xam ne day tax nit ñi xam ban tarixa nga bokk. kii li mu def sol ab mbubbam mi mu sol république warut a doxale noonu. may rappelé murid yi am na loi bu Bamba Sourang mas a génn def lu assemblée la loi ba léegi mi ngi am pour que tur turu sëriñ sax di tukku bind ci oto buy daw oto buy transport en commun parce que moom daa xam la mooy la la république doit être neutre. sur le plan bu fekkee da ngaa nekk sa murit booy dugg sa ministère da ko war a yemale ci buntu ba. Mhm. bu fekkee cérémonie officielle nga ngay dem waroo sol loo xam ne bu ñu la ne murit nga wala tijaan wala wala wala leneen yëre yii mu sol maa ngi wax Bassirou Diomaye Faye ko wax loolu mu dakk que dans les cérémonies officielles benn ministère war fa sol loo xam ne dañ koy xam la kii mu dëgg c'est une chrétienne. Victorine Ndeye. c'est une chrétienne est est sol na chaîne chaîne bu ñu def croix. kon may wax ni kii li mu def lii mooy na maanaam pour na xam naa peut-être jaar ci maa nu murid yi pour nax leen. soo duggee ci bureau waroo faa fekk photo benn sëriñ photo président nga fa na photo mooy sa photo doom à la rigueur kon encore une fois nañu dellu si xam ne le Sénégal est une république laïque wari su ministre ci cérémonie officielle amul sañ-sañ sol yëre yoo xam ne day fa day xamal nit ñi ban tarixa la bokk euh, madame Ndeye c'est une chrétienne. Mm-hmm. assumée est-ce que takk na croix. est-ce que mën ngaa xam di ko xool mën nga ko xàmmee ban ban ban ban ban diine la bokk. noonu la kii ku fekk si mu di ko jox léegi yi waroon na def waaye yii moom fekkente ne dañ cee jaar pour gurgur murid yi murid yi weesu nañ foofu. mbokk yi kon noo dégg li Moustapha Diakhaté wax li mu wax nag moom bari na. waaye ñett walla ñeenti poñ rekk laa ciy dikk ngir laa biire ko ndax moom daa xamut xam nga diit ki bu nekkee ci mbedd di wax waxi nit nit ñi dañ koy romb jàll ndax mi ngi wax waxi nit waaye ku taxaw di dof di wax waxi dof ku ñëw taxaw di la déglu ndax la ngay wax ba mbooloo mi bari moo tax ñu bari bëgg ay vues tax na ay dof la ñuy wax loo te ñooñu Moustapha jaxate mi ci la bokk ndax waxi dof rek lay wax bi njëkk mooy Moustapha jaxate nee na day digal président Bassirou Diomaye fay dinaa ko wax mu wax ak kii ci li mu sol Moustapha Diakhaté kañ la doon conseiller président Bassirou Diomaye fay koo xam ni bu muy xëccoo àndoog moom koo xam ni boo sañoon ba nëgg ni caabeeng ko féete gannaaw mu dem ba falu nga taxaw ni danaa ko digal loolu xaw ma lu ko gën a doon waxi dof te ci biir wax ji ak mbañeel def ciy feeñ ndax nit kenn waru koo bañ nit ki danga war a bañ jikkoom jikkoom jëm nga bañ bu tàggoog moom nga bëgg ko nit ki da nga war a bañ jëfam jëf ja nga bañ ci moom bu tàggook moom nga bëgg ko waaye bañ nit ki ngir bañ ko rek loolu la kenn xamul lu mu doon te moom dafa war a nungu dogalub yàlla sëñ Moussa Ka dafa wax ni lu yàlla nar loo ko bañ bañ bañ asal dina am waaye lu buur narut boo ko dee jéem xam ni doo laaxu président Diomaye lii mu am mboor da koy téye di ko nettali wuur yi ñëwagul muy génération yi ca kanam ñu jàpp la weeru koor tëj la ba weeru koor wa delsi nga ume ci biir kaso bi koor waree ji pale loolu yàlla miy joxe nguur rek moo ko man Moustapha Diakhaté Sénégal dañoo gaare daf fafal naaw ab avion ca kàndaama nga muy aéroport ba ñu ne nag fafal naaw gi kat benn toogu rek moo ci nekk kenn ñu tànn ci fukki million gi Sénégalais yi ak ñeent mooy toog ca toogu ba nit ñi tàmbalee fàq jëm ma muy aéroport lawax yi bëgg a dugg ci avion ba booba am na la wax boo xamante ni caabeen ko féete gannaaw lawax yu bari doxal nañu ab diir mu doog a ubbeeku ñëw fekki lawax wax yi ca aéroport ñu tànn ko mu dugg ci avion ba naaw ba dem li ma bëgg wax mooy fal nañu ko ba mu jël ñoom war a jël ànd ak ñoom di liggéey nga wàññeeku di ko xeex boo koy xeex li tubaab yi di wax naan critique yu objectif da nga ko cay teg waaye bul wéyeeg sëg mbañeel rek ndax dégg nañ ci say wax nga di leen diggal ni leen nañu def ab séminaire séminaire pour lan ngir yéen xamu leen dara nañu leen njàngal ni ñuy doxale nguur xëy na ni ñuy solo ni ñuy ñuy defee réunion conseil des ministres ak yooyu Moustapha ku la laajul xalaat loo ko xelale yow moom wóor la ne ni nguur gi fi nekk dégluwuñ la kon boo ne da leen di conseiller loolu wax ju yàqu la nga wàññi ko bëgg a boole jullit yi ak waa kër labbe ndax soxna si doon weccee ko ay euh, doon weccente ay lenge ak ki tax ngay wax du ab jullit waaye yaa ngi koy jéem a baab naan gis nga takkul ab croix pour wane ni ab catholique la Moustapha yow da xamul te xamoo ni xamoo te loolu nag lu ko gën a doy waar xawma ko ndax ñun ay tubaab ñoo nu yilifoon nguurug tubaab ñoo fi nekkoon Musaa Jaxate tey faw mu indi la bindu mboor cours histoire laa la bëgg indil ab leçon ndax yow xamoo dara Moustapha Diakhaté xoolal photo bii ñiy toog tubaab yee leen faloon muy conseil colonial 1922 xoolal tubaab yi xoolal sa Sénégal yi ñu fal ndax tubaab yi dañu leen ni woon da ngeen di sol ay costume doog a ñëw ci réunion conseil colonial bi muy foto boobu photo bi ci topp mbaaxaan doomi Lat Joor Jóob xoolal li mu sol ci membre yi conseil yi la bokk ndax tubaab bi dañ ko newoon da ngay costume doo sol mbubbum cosaanu Sénégal boo ñëw Moussa Jaxate yaa ngi wax ci biir bëgg a réeral nit ñi naan alaaji Mbamba Sorong jëloon na fi ab projet de loi pour tere ni turu sëriñ sax buñ ko bindati ci oto xoolal jëmm ji di sëriñ ma Sorong Sorong di waajuru alaaji Mbamba Sorong moom ngay wax moom mii di sëriñ ma Sorong Sorong membre la woon ci conseil privé ñu fal ko xoolal mbubb mii mu sol ndax daa costume photo bi ci topp nataal bii xool ko ak Blaise Diagne ñoom ak tubaab yi xoolal saa Sénégal yi ci nekk ndax dañoo sol ay costume xoolal sëriñ ma sorong sorong ca Paris tubaab bi mu àndal di dox tubaab baa ngi sol mbubbum cosaanam moom it mu sol colug cosaanam tubaab baa nga costume karawaat aku feltam moom mu sol bone kaareem yor ab kaanam sol yëri cosaanam te loolu Paris la photo bi ci topp xool ko moom Blaise Diagne ñoom ñaar ñëpp ay saa Sénégal lañu kee député la ki membre conseil privé la Blaise nga sol costume aku feltam waaye moom xool ko li mu sol ndax daa costume gannaaw moom xoolal jëmm ji ñuy wax Adama Lo Adama Lo président conseil général la woon en 1946 raay bi bàyyi ko njaareem ñëw Touba carrière ba moom la ko tubaab yi doon toppatooloo ca Bambey mu doonoon président conseil général en 1946 xoolal Adama loolu li mu sol ndax dafa costume kon Moustapha Diakhaté yow nga am sañ-sañu sol lii nga sol te loolu sax damaa bëgg nga wax ba xam sa col gii nga sol bi ngay wax lii ngay wax ndax colug kajoor la ndax colug bawol la ndax colug siin la walla saalum wala jolof wala waalo wax nu colug loo sol yow ba noppi doog a ñëw ci kii nga xamante ni boo demoon ba Japon boo ko séenee muy dox mu wóor la ni kee ab sénégalais la waaye nag dafa am lu la ci metti te sëñ Moussa dafa wax ni Serigne Touba mëneesu koo nax mëneesu koo njublan ku tawlu day tax Moussa Jaxate wax nga ci sa biir yi wax ni ab murit bu ñëwee ci ministère am ak muritam da koo war a wocc ca buntu ministère ba waru koo duggaale nun de Sëñ Abdu Lahat jàngalu nu loolu Sëñ Abdu Lahat def ni boo àttanul say itam fexeel ba yor ci matt goo xamante ni baatub lang-langee la la jëfandikoo fu ñu la seen nañu la seen ngay lang-langee ak matt gi booy dox na ko yor booy tëdd na nga tëdd ak matt gi fu la seen nañ la seen ak matt gi fexe ko yeggale rek say bu ñu ko séddoo kenn ku nekk yoroo matt say wi dana dem yow nag ndeke ba nga yoree sa làmmiñ wu rëy ba ñu def la président groupe parlementaire ndeke boo masaa ñëw assemblée nationale soo egsi ci bunt bi rek fa ngay wàcc sa murit sa matt ndeg amoon ndeg yoroon nga matt kat laa wax yow seetluwoo li nga wax sax ab murit bu ñëwee ci buntu ministère am fa lay wàcc ak muritam kon dalul ab murit waaye ab mërit la wala muy ab mëriirandoo murit bi lu mu man di def fu mu man di nekk dafay feeñal ak muritam te moom jëmm ji de passation de service bi ngay wax ndax da dégg ca discours mu taxaw ni leen man murit la walla mu wone ca biir biiri waxam luy wane ni murit la ak col la sol loolu moo lay bëgg a rey te yow nga sol colu kenn xamul foo ko jële Moustapha Diakhaté da ngaa naa fekk waaye ñoom ñii col gii nga xamante ni Hizbut Tarqiyyah mbubb mi ñuy wax bàyyi laat ci sëñam daal lañ ko royee moo leen ko joxoon mbubb mii ñuy wax sëñ soy bu sëñ soy boo leen ko joxoon bañ nañu ko ba ku ci bokk moo xam ab mécanicien nga moo xam ouvrier loo man di doon bu ñuy monter seen tànti wala lu ñu man di def ba Europe seen mbubb mii lañuy sol loolu sénégalais bu fi nekk seetlu nga ko ci ñoom bu yàggul rek gis naa kenn ci ñoom mu nekk ci ab salle de sport nekk ci machine yi sol ab baylaatam di daw ba am ñuy naqarlu loolu naan mbuum mi dafa sàkkare kenn wër wërta def sport di ko sol da war a wut blouson dugg na fi génn na fi nga dib sénégalais te doob sénégalais yem ca ndax gis naa ñuy wax naan Moustapha Diakhaté maamam saxaar gee ko fi indi déedéet waaye guy day jur ab xetax Moustapha Jaxate kenn gënu ko maam waaye am maam ju baax dafa taxut a baax kan mooy maami Moustapha Jaxate maam maaram maam moo am soxna Mbakke awañan mu am sëriñ xaar yi Amar soxna Mbakke Jaxate mu am maa Issa Nguy Jaxate mu am Momar Kambel Jaxate mu am Modou Gane Jaxate muy bàyyu Moustapha Jaxate kon fu baax la bokk ñii wax naan saxaar fii ni maamam déedéet moo bon bonu boppam mais fu baax la bokk waaye moom yoonu murit wi lay bañ a dégg wala mu bañ cee teg bët ndax ak bañ muritam moom la wone ci waxam ji mu wax ministre bii nga xamante ni dem na ba naan dafa bëgg dox ci maayinu murit yi loolu mooy wax xanaa mooy waxi dof ku xës falu ba pare nekkoo campagne nekkoo lan la def nee nga daa il veut plaire murit dafa bëgg neexal murit yi li mu sol moom lay neexale murit yi moom ba mu doon is bu xeex léegi danga nga koo mas a gis mu sol leneen lu dul lii kon Moustapha Diakhaté Sénégalais yi ci boppam ñoom nga yàpp ñiy sàmm sunu mbatit ñoom nga yàpp ndax su fekkente ni bëgg ngaa taxaw nii colug bitim réew la sol waaye sunu colug aada ak cosaan gi nan ko bàyyi soo Diakhaté république bi laa bëgg nga wax ma dan mooy mbubam yow sëñ def naa ni Alioune la tudd moom moo la neexul walla fi mu bokk moo la neexul ba tax nga ni bu mu sol mbubbam mi day wone ak muritam waaye waaye boo nga gàddaay génn Sénégal de mbubb moomu day bu dee moom nga bañ a gis booy boo nga gàddaay génn Sénégal yow li tubaab yi toléré woon ci ak col nu dem ba ni am moom nañu suñu bopp juróom benn fukki ak ñeent nga taxaw ni wéyee président bu bees am na xamul dara naa ko jàngal nu ñuy gouverner na def séminaire pour former ay ay ay ay ay ay ay ministre am na wax ay ministre am ñuy solo nañuy solo lii conseil boobu ak ndëgg sërëx la yow tey boo sañoon conseil des ministres président euh, Bassirou Diomaye Faye jóg taxaw daal di ni euh, le ministre yow mi soloon col googu bi ngay def passation de service nu mujj tey bu ko solati loolu nga bëgg mu wax ko du ko wax moom xam na li mu bëgg xam na fi mu jëm kon euh, conseil yooyu nga koy conseil digal yooyu nga koy diggal ay ndëgg sërëx rek bëggoon tey mu tere ni bu fi kenn solati mbubum isbu tarxiya bu fi kenn solati ab baylaat waaye loolu wax ju yàqu la lii daal laa la doon baaxee rek xamal la ni la yow li nga bëgg a teg tubaab yi fi nga xam ne ñoonu notoon te nekk fi sax teguñu nu ko fi ndax bu mu ndaje a am muy conseil général wala conseil colonial wala conseil privé kenn ku ci nekk tubaab bi dañuy costume ñii sol seen i grand boubou ñii sol seeni manto manteau ñii sol ñii sol yow nag su fekkonte ni monsieur le ministre dafa sol ab grand boobu du la gêné su fekkonte ni dafa sol euh, ab jàllaa bi du la gêné waaye bàyyilaat laat bii mu sol wala suñ son bu bii mu sol ak kaalaam gi ak marakiisam yi loolu moo lay metti waaye bu fekkente ni loolu booy boo nga gas ba mu xóot nga dugg ca suul sa bopp ndax saa boo xëyee gis ko ko sol kon nag li ñu wax li sëriñ Touba ba muy njëkkanteeg tubaab yi tubaab yi dañoo njëkk ci jëmm ya moom mu njëkk ca xol ya yaag ñi mel ni yow nga xamante ni ay tubaab yu ñuul ngeen tubaab yi dañoo njëkk ci seeni jëmm ngeen ñuul waaye doon ay tubaab yu ñuul ba ñi mee wax loo xamante ni tubaab yi ñemewuñ ko wax Sëriñ Tuubaa moom dafa njëkk ca xol ya foo dem ci monde bi fii ba Japon foo leen fekk seen col gi moom lañuy sol Europe fu mu mën di doon kon soo ñëwee ba ci biir Sénégal ñu nañu tere col gi bu ko fi kenn solati mbon ko bol rek moo tax mbokk yi lii daal laa ni woon mënuma ko ñàkk indi baaxe ko dof bii nga xamante ni bii day waxtu li tubaab yi wax délire moom lay def muy lan mooy ay noonam ñoo falu bu sañoon tey duñu falu yàlla fal na leen nguur moo koy joxe kon booy boo nga muñ te jéem a nungu dogalu sunu mboroom